xalaatee sax fekk mais loolu bu ko doyul lan moo koy doy Ousmane Sonko bu génnoon du am lu ëpp lii. dara jàpp nga ne mu génn Ousmane Sonko man yàlla na ko yàlla génn moom laa ko yéene. mënul démasquer ñenn ñi. mani xoolal démasquer wala leneen. mais pourquoi ñenn ñi sax war a opposé wu ci lu ne mais c'est-à-dire pourquoi ñu bëgg euh, plus Macky Sall maintenir pouvoir bi ou Amadou Ba. que Ousmane Sonko wala Diomaye nekk tey gi njiit la alors que ñoom ñëpp ñoo bokk làngum opposition bi ñoom ñëpp ñoo yàgg wax nii dañoo bëgg changement ñoom ñëpp ñoo yàgg woowee Ousmane Sonko seen doomu ndey xam nga ndeyu mbi léegi lenn dong la lañ ko doon woowee sama doomu ndey ak di daw di jëm ci moom nañu ko nangu fii fii laa la wax ñaari candidat fi am candidat au pouvoir ak Ousmane Sonko muy Diomaye soo bëggee dégg-dëgg leneen lu mënti doon gis nga fii laa la koy tegal bu ñu demee ba ci tàkkusaan du ma ne yuuxu dana jibe fuñ ko fogooloon yuuxu dana jibe fañ ko foogee woon ak fañ ko tegoon xam nañ li xew gis nga ñooñu di ruubeeg yi def yi kenn xam di wax ci ko wax ci suuf amal lu ñu njariñ ñun ki ñu amal njariñ mooy ndeyu mbili gi muy Macky sàll président Macky Sall xam nga lan lañ ko wax pare nga jàppal dat boo jàppul date conseil constitutionnel day jàpp date dañuy dem élection ñii toog di xalaat di jooy naan duñ dem dañuy dem élection. incha allah jàpp nga sax ci dialogue bi mënatañ cee jàpp date. temps mieux. dem nga ko mais dialogue bi jàppul date su booba bu ñu ko tuddee dialogue bi dialogue bi jàppul date invité xut bu zamaan invité ku la neex nga ñëw mu ñëw toog moom mënul changer dara ci li nga xamante ni conseil constitutionnel tëral na ko. yéen a ngi naan euh, président na jàpp date mais ndax président du jàpp date après ngeen wëlbatiku euh, nii date bi mu jàpp arrangé wu leen waru ko woon man dama la wax léegi balaa ñuy commencé ne la campagne bi vingt 21 jours la bu bëggee sax nañu ñaan ci njekk comme ni mu koy waxee moom. comme que dialogue bu njëkk bi da ngeen daf ni dangeen may ñaan ci njekk waaye dialogue bu mujj bi moom wéet na torop ci ñaan neen ma ci njekk mu ngi wut bunt bu mu génne pour ñu am amnistie ko mais dama la bëgg a xamal ni 21 jours yi buñ ñu ñaanee ñu may leen 10 jours yi ñu campagne 11 jours dugg ci élection yi ñu xol wala sax bu leen neexee nañu nañu nañu taxaw ne situation yi ni mu demee permettre ñu ñuy jéggi Euh, calendrier electoral bi. permettre wuñu mais nag dafa mel ni mais nag dafa mel ni ba tey yéen koy ñaan ci njëkk de parce que yéen nekk di ko ñaan pour mu jàpp date ci nu mu pour mu lan. pour mu jàpp date ñun ñaanuñu ko force la. dafa am lu ñuy ñaan di sukk di ko saraxu moom moo féetewoo ñaan fi mu ne nii moom moo féetewoo pour mu wut ñu ko wallu bay jël candidat yoo xamante ne ay recalés lañ bokkatuñu mu ne nañ ñëw bokk ci kii bi pour dooleel ma. ñun ñu ne ko fa yàlla banding. ah ñooñu waru ñoon bokk selon toi. fu ñuy fu ñuy bokk. fan la ñuy bokkee mais éliminé nañ leen. mais waru ñoon bokk ci waxtaan bi laa bëgg wax. mais nuñ dialogue bi dafa amul place fi ñu ko teg pend d'abord fi ñu toll amuñu temps wu dialogué fi ñu toll temps wu jàpp date la fi ñu toll temps wu dem ci campagne la fi ñu toll temps dem ci élection ku yàlla dogal mu gañe mu ñëw toog waaye ku fi yaakaar di jaay ni yow yaa gën juddu wala yaa ëpp barke. wala yaa ëpp yaa ëpp nuñ koy tuddee te xam ñu koy waxee waxeeti ci wolof fit ba ni réew mii ñu nekk tey jii président bu ñuy tànn dafa war a mel nii wala dafa mais yow yaay kan. d'accord seize opposants yi seize candidats yi plutôt euh, xam nga ni jamono gi ñuy waxtaanee yi ña nga woon ca conseil constitutionnel ngir déposer seen recours ndax ñoom jàpp na ni conseil constitutionnel dafa war a jël li nga xamante ni moo di matuka matukaayam su ko defee élection yi gën a mën a am ci nu mu gën a gaawee. mais moom moo ko njëkk a wax conseil constitutionnel moo ko njëkk a wax bi mu bind président Macky Sall daf ni ko li nga wax teggi nañ ko teg fële. waaw léegi le 25 mënatu la doon élection yi. mais nag ñoom ci dañoo bëgg maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw maa ngi ñëw bàyyi ma eggale sama laaj. comme bi bi ngay laaj dama la déglu. Euh, jàmbaar nga trop nag mais da ngay <laughs> da ngay ak lay ak di kii kii question yi. Euh, conseil constitutionnel dafa taxaw wax li mu wax bindu ko signé ko li nga bëgg ñu àndal élection yi doo am mënta am. wëlbatiku ne ko le 25 mënatu la nekk mais nañu jàpp datu élection dans les brefs délais te bu mu passé le 2 avril parce que dañu ki la war a wuutu dafa war a def prestation de serment mais moom tourné na tontu tontu tontu moo tax gaa ñi wax dama ni ñii ñu ngi ci seen yoon ba pare ñu bëgg a taxaw ni li ñuy waaj dañuy dàq élection yi déedéet conseil constitutionnel li mu tëral Macky Sall mu ngi ci daf ko tontu ne ko li nga wax ànd naa ci te dinaa ko def. ñamu ko wax nag mu taseeg ñoom mm. ñooñu laa lay leeralal xam la demal woo waa Sénat demal woo ministre de l'intérieur demal woo ki affaire ñi ñi yor affaire sécurité demal woo les dix-neuf partis wala coalition ngeen toog xool ban date moo gën a jekk ngeen jàpp date boobu ñëw ñu valider ko bu loolu amulee mm. conseil constitutionnel ne ko du conseil la da ko da ko delloo njukkal goo xamante ni cëram la xañu ko ko mais diñ ko ko cërale cërale taxul ñu ne ko da ngay forcer def leneen lu wuuteeg lii dañ ne ko lii la jaar ci bu ci président jaaree alhamdulilah bu ci jaarul xam nga fu ñuy mujjee moom dem ci comme ni leader yi def léegi dem ci conseil constitutionnel ne ko ay la yéwén kii nga defal ndabal teraanga xamul ndabal teraanga li léegi nag li ci des mooy li yoonu yoonu réew mi tëral jàppal ñu jour bu ñuy demee élection conseil constitutionnel da ko jàpp d'accord alors euh, Imaam été un plaisir di bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin waxtu bi jeex na tàkk. macha allah li ma métti rek mooy da nga ma ramassé <laughs> questions yi takkarnaase waaye loolu seen liggéey la ñu ngi lay ci remercier bu baax a baax. Mm. di euh, métti lu tamit heure bu gàtt bi ak waaye dafa fekk ni ñu ngi waaj a dem ni Daaru Mooti. oui que màggal gi. Euh, dañ ñu ca invité te bu dul invitation sax dañ ci am part eh, di ñaan yàlla ña ña ñuy fekk yàlla nañu fekk ci jàmm ñiy dem ci yoonu yàlla defal leen sutura bu lu ñu fa ñaan yàlla nangu ko di sant di gërëm borom kër gi eh, ak soxnaam ak yëpp di la mm. sant di la gërëm ci invitation bi bu baax la yàlla na yàlla gën la jàpp jàppale di la jotal nuyoo ak euh, seetaanu suñu njaboot yëpp muy mm-hmm. suñu soxna mm-hmm. su turandoo sama turandoo euh, madame Ndiaye Ndeye Penda Tall maa nuyu voilà mu ngi noonu mu ngi ñuy suivre mm-hmm. euh, di ñaan kër gi yàlla na fi yàlla saxal jàmm doon fi sutura diaspora bi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni insha allahu taala yaakaar naa ni dafa am lu lax dar yu wax foofu laay tëjee ci imam Dramé parce que dama ko waxoon bi may génn bi may génn lay def benn vidéo di ko kii lax dar yu def ni suratu tawba an nadamu ala ma faata nit bu defee ba pare taxaw nangu ne def na erreur jéggalu ci erreur boobu nañ tourner page boobu comme que moom dem na ba ñëw euh, indi nañ ko carton carton carte invitation mais jàpp na ni d'après vidéo bi seetaanaguma ko dama wax ni mu waxee rek laay dégg. Mm-hmm. jàpp na ni insha allahu taala lu Pastef bëggul bokku ca lu Ousmane sonk bëggul bokku ca benn mbir la yore rek mooy jële fi. Macky Sall am na sax ñu doon xala ñu doon xaani da ngeen ko naroon génnee mu dab. noonu non non moom moo wax loolu ci discours am te loolu man su ma su tàgg woon du ko wax moo ni suñ ma dàqee sax moo dab euh, moo du demee noonu du doxe noonu moo kilifa gi wax na tontu na te kilifa gi tontu kilifa la tontu daf ni ñun moo dab yëguñu tooguñu réunion wuñu moom nee na moo dab daanaka sax tut ba ca moom la jógee kon am na ci wàll waaw wax na dëgg loolu moom am na lu mu ci joué lu bëree bëri buñ ne daal nañu nañu rafetal rek nañu rafetal rek comme que daal tuub na te condition tuub mooy nga regretter li weesu mm. te jubal saw yoon nañu nañu ko jéggal li nga xamante ni rëccoon na ko et invitation bi de si xotti na ko loolu lañ mën a nangu wala boog du dem foofa comme que dematu fa te jéggalu na nañ tourner page boobu maa ngi koy ñaan man mm. damay ñaan rek képp koo xamante ni yaa ngi nekkoon ci réseaux sociaux yi mhm. di ci wax na nga ci wax lu rafet ñu gën a avancé dem parce que tollatuñ ci door ci jamono joo xamante ni dañuy xëqante mhm. wala ñuy waxante kàddu yu ñaaw mhm. eh, eh, ki def loo xamante ni waru ko def xamal ko ne ko li nga waral li nga waroon a def defuloo ko mu delluwaat place am ñu delluwaat mbir mi delluwaat ci compteur ba à zéro ñu commencé waat li ñuy liggéey li ñu ñor mooy incha allah dugg ci élection balaa le 2 avril incha allah ñu taxawal jomaay mu def prestation de serment d'accord bu doon ni nag ma tëje ko nga baal ma bu doon ni Ousmane Sonko la dañuy gën a kontaan cere ju neex ci la diw dàqe waaye ñoom ñoo indi seeni pexee pexe gi seen i nas ba écarté président Ousmane Sonko te gën a luñu. d'accord yàlla nag won leen ne leen. oui euh, euh, su euh, du surga sax. Mm. waaye waaye da ngeen doon jàpp buur far daggu buur nag. am na solo te jàkkaarloog yéen. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. oui salaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup imam Khalifa Ababacar Ndiaye tey ñoo amoon mbégte lool c'est que waxtaan bu yaatu